monsieur Ndiaye ñu ngi lay mhm, di la dalal El Hadj Ndiaye la mhm. secretaire général national liggéeykatu hôtel ak restauration waaye it casino yi tey ji mhm. euh, ci mbas mi jamono ji nga xam ne ñaari mën nañoo wax saison daaw ak saison ren yëpp euh, tourisme sénégalais euh, dafa jànkonteel ak mbas mi nu muy dundee jamono ji waaw ñu koy dund dund bu metti ndax mbas mi Euh, Sénégal mu ngi laal na Sénégal ak laal Afrique yëpp sax waaye c'est mondial àdduna bi yëpp la laal mhm. tegam pays yi nga xam ne dañuy avancé euh, ci wàllu économie mhm. ñoo am ay difficulté ak ay pays yu ndaw yi comme le Sénégal ñu itam am nañu ay jafe-jafe surtout suñu secteur secteur tourisme ak transport aérien mhm. alors euh, depuis mois de marche nous sommes en difficulté dëgg la ndax patron yi sonn nañu travail yi sonn nañu même état bi tam sonn na loolu moom il faut le reconnaître euh, ndax patron yi restauration bi sax restauration sax mi ngi dox tuuti tuuti tuuti tuuti mi ngi am pour pourcentage hmm. quarante cinq pour cent cinquante pour cent soixante pour cent waaye hôtel yi yi moom doxul ndax xam nga chambre yi il faut tuuti si ñëw hmm. te xam nga aéroport bi dañ ko fermé hmm. frontière yi ñu fermé leen kon gan du ñëw te bourse bourse bourse Sénégal yi mënuñu par exemple mënuñu jël ci hôtel yi di di fa dëkk ndax daa metti kon bu ma la déggee ngay wax amul benn yoon touristes yi nga xam ne jóge nañ bitim réew ñëw ci saison ren bi. déedéet amul benn yoon pour ñëw parce que Union européenne ñoo wax ni euh, Sénégal dañ ko aj ak yeneen pays africain ba xam ñoom bi fi ñëw seen i avion di indi ay gan te xam nga gan yi bu fekkee ñëwuñu chambre yi du ñu am client. Mhm. casino yi aussi du ñu fonctionné ndax casino sénégalais du fa dugg. Euh, dafay am bi ñuy commencé fonctionner à partir de minuit dafay am commissaire bu toog ci buntu ba képp koo xam ne da nga am carte d'identité nationale Sénégal nga fa dugg te loolu itam c'est légitime parce que dañuy bañ si devise bi maanaam si alal ji di génn ci bitim réew. Mm-hmm. donc gan yéen ñoo fa war a dugg xam nga gan nag bu fa waree dugg te ñëwul du xam nga du mm-hmm. donc jafe-jafe yooyu am nañ ko euh, wax dëgg yàlla. Euh, ci wàllu secteur hôtelier et de la restauration. kon daal tey bu ngeen ko doon xayma nan ngeen di ñaata ngeen di évaluer seen perte yi tey patronat moo ngi wax quatre vingt dix pour cent. non néeg bu ñu occupé néeg bu nekk cinquante mille par par jour. Mm-hmm. dangay xool ko am juróom-benn fukki chambre chambre bu nekk ñu koy fay cinquante mille par jour mhm. quinze jours rek benn chambre bu nekk dana encaissé euh, sept cent cinquante mhm. maanaam euh, xam nga ni wax téeméeri junni ak juróom fukk mhm. lu dëgg kon xam nga kooku boo ci amee soixante chambre wala nga am ci quarante chambre wala nga am ci cent chambre deux cent chambre xam nga ah, ah, mën naa wax ni euh, wax dëgg yàlla tuwaarkaay yëbatoo dara mais est-ce que hôtel yëpp bénéficier wu ci loolu waa hôtel yëpp ci bénéfice yu bari bokk ci ëpp quatre-vingt-dix pour cent yi bénéfice woon nañ ci nag mm-hmm. ndax Dakar ak région yi ñun yëpp ñoo ko bénéfice woo mm-hmm. dem nañ sax ba hôtel yi presque fees ndax loolu mm-hmm. ñaareel ba gouvernement bi tegoon na benn crédit yi ñu def cherul ndax trois virgule cinq pour cent loolu ñun ñoo ngi demandé ñu aj aj dale bi ñu yokk ko état bi yokk état Sénégal yokk ko taxi yi itam ñu ñu aj ko wala ñu annulé ko sax fii ba deux mille vingt deux pour que oto yi mën a redémarrer maanaam mën a taxawaat seen taxawaay bu njëkk ba. Mhm. ñun loolu lañ def ci def na ci papier d'ailleurs te itam ñoo ngi sollicité euh, rencontrer ministre du tourisme pour ñu soumettre ko ko. pour que mu plaider la ko auprès du président de la République. Mhm. waaw parce que il faut aussi ñu jàppale leen. dëgg la monsieur Ndiaye euh, situation bi nga fi décrire euh, trois mois yi la yem tey jii euh, mën nañ ne xaalis googu jeex na lan la mm-hmm. hôtel yi roulé ba jamono ji waaw jamono ji nag hôtel chambre yi doxul waaye restauration bi mu ngi dox xëy na xëy na région yi sax ñoo am tuuti sooxe. Mm-hmm. waaye Dakar restauration bi mu ngi dox ñu ngi am client wax dëgg yàlla. man def naa tournée ci hôtel par hôtel parce que man damay def hôtel par hôtel. Mm-hmm. waaye restauration bi mi ngi dox. ñu ngi am remplissage soixante pour cent soixante dix pour cent am nañu am quatre mm-hmm. ko war a mën a feesal te touristes yooyu ñëwuñu donc loolu ñun comprendre nañ ko. d' loolu loolu est ce que taxul. ngeen ñi acteurs yi réorganiser waat secteur bi de telle sorte que tourisme local bi dina dox ba mu mën a euh, ba ñu mën cee sukkandiku bañ a xaar euh, tourisme euh, ñi nga xam ne ñooy jóge bitim réew. ci loolu def nañu préposition ñun. Mhm. parce que loolu pour mu mën a dox maa ñun ñoo ngi ko tuddee relance de secteur touristique tourisme. Mhm. relance boobu dañu wax ni gouvernement bi ci boppam la ci dugal loxoom. patron yi dugal ci seen loxo. Mhm. liggéeykat yi dugal ci seen loxo yu demaat liggéeykat yi seen loxo. ndax ku daan fayeku salaire ñu lay wax cinquante pour cent wala soixante pour cent wala dix pour cent. Mhm. déjà yow def nga sacrifice xam nga. Mhm. waaye état bi itam taxe yi mu teg ci ndoddal patron yi il faut mu aj ko wala mu annulé ko fii ba deux mille vingt deux. Ah. Euh, ndax patron yi dañuy am charge yoo xam ni charge fixe la maanaam lu tegu seen loolu loo xam weer mu nekk la muy courant muy ndox muy salaire. Mhm. waaw loolu nag bu fekkee ne gouvernement bi bëgg see boole ay ay ay daal di metti moo tax ñun dana proposé état bi te taxes yu aju woon ci autorisé rek na ko aj ba déwén ba deux mille vingt deux. ba deux mille vingt deux. parce que itam nañ def sacrifice. Mm-hmm. ñoom itam pour que sénégalais bu ñëw seen hôtel présenté carte d'identité nationale ñu am day am ñu wàññil ko bu fekkee ne chambre mu doon jot junni ñu fayloo ko deux mille cinq cent juróomi demee ci restaurant touristique yi. Mm-hmm. bu fekkente ne euh, plat bi mu doon jar euh, euh, téeméer ñu defal ko ko juróom fukk su ko defee Sénégal suñu bopp daañu sawar pour dem ci hôtel yi wala dem ci ci restauration yi. Mm-hmm. alors wax nañu aussi ni Sénégal destination Sénégal dafa cher état bi kooku de ci war a wax parce que jël avion bii avion ñëw Sénégal jël bii avion dem Maroc moo gën a yomb dem Tunisie moo gën a yomb dem Égypte sax moo gën a yomb mm-hmm. kon loolu état bi fa mu liggéey ci. Mm-hmm. waaw loolu lépp proposé nañ ko tënk na ci benn document boo xam dañ koy jox ministre bi. Mhm. Euh, bëgg na mu dajeeg euh, ministre bi tourisme waxtaan ceeg moom ensuite euh, mu jot li ko président après pour ñu seet ci ay solution mhm. wax situation bi situation bi mhm. hmm? wax si njeexital bi jamono ji bëri na li nga xam ne mooy conséquence yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ndax tey seen ëllëg xewul waaw sooxe na kay ndax xam nga mbas mi. Mm-hmm. comme que xamuñu kañ lay jeex. Mm-hmm. te sàcc yi tegu tegu tegu du fi jóg moom sàcc yi moom du fi jóg. Mm-hmm. loolu itam xam nga kuy tiit war a tiit wax dëgg yàlla moo tax wax dëgg yàlla lu yàkkamti ñàkk yi ñëw ba nga xam ne daay Sénégal daañuy rassuré wu. Ah, ah, ndax euh, wax dëgg yàlla patron itam dañuy def comme pétrole seen pétrole bi dañ leen def comme ay doomi ndey wax dëgg yàlla gis ma benn patron boo xam yaa ngi yuuxu ci seen liggéeykat bëgg a wàññi leen. am na benn hôtel bu fi wàññi ay hôtel ay ay travailleurs waaye kooku li mu yoroon tâche bi mu yoroon dafa xaw a diis. et justement yaa ngi ko tudd. hôtel ba bu nekk fii dégg nañu cent vingt six euh, ci ay employés la daal di wàññi ndax ñooñu am na ni ngeen leen taxawoo yéen ñi. di syndicat waaw xam nga ñooñu tam jotoon naa ko ci délégué yi fa nekk. Mhm. ñoom ñoo leen encadré. amee lu leen benn ak ak yelleef boo xam ne desal desal nañ leen ko. topp topp nañ ne ni ko code d'État yi waxee ak ni ko convention interprofessionnelle yi waxee ak euh, ba nga xam ne lépp luy seen àq seen yelleef fay nañ leen ko ba pare ku ci nekk may lañ la ñaari weer salaire kenn ku ci nekk ci ñoom li nga amoon IPM ñi amoon nañu un million ñi deux cent mille ñi ñoom ñëpp dañ leen ko baal hôtel bi moo ko jël en leen ko ensuite euh, ñi nga xam ni sax dañu amoon euh, compte bancaire mm-hmm. maanaam virement te bi ñu calculé seen i droit dañ ko viré directement à la banque banque teq lañ leen ameel kenn ku ci nekk jox leen cinq cent mille nga def sa poche ñëpp yëpp mm-hmm. maa ngi sax nekk nii maa ngi négocié waat ak bi pour que ku ci nekk ñu traité waat la joxaat la un mois de salaire pour dimbalee la ko en attendant te bu yëf bas mi jeexee. bu oto bi jëlaat ñoom yooyu lay jëkk a jël loolu la ñu signé loolu la ñu signé la ak direction bi. Mm-hmm. donc li war a seen àq seen yelleef lépp respecté nañ ko. respecté par contre. Mhm. bu demee Saint-Louis am na fa ñetti hôtel yoo xam dañoo tëj. dëgg la sax du ñu hôtel yu mag. parce que li ñu yoroon ci ay nit bariwul ñii onze personnes ñii treize personnes ñii douze personnes mais dañuy jaaxle ndax amatuñ fi ñu jëlee benn dem toog. ñoom patron yi liggéeykat lañu. waaw waaw lu ñu tuuti tamit seen ak ak seen yelleef war nañ ko mën a respecté. exactement. Mhm. ñoom dañoo tëj rek man dem naa fa mais gis ma ku wax ndax damaa maa ngi def recherche pour man a xam fu ne euh, pour que li yoon wax ñu respecté ko. d'accord sama représentant bi nekk foofu tudd Georges Diop ma ngi tey taxaw bu baax a baax pour encadrer liggéeykat yi pour que ñooy bis bi ñuy génnee rek. ñu te jaarale leen ci yoon liy àq yi am ak yelleef ñu respecté ko. Mm-hmm. def naa ba ci rencontré inspecteur régional de de de saint mm-hmm. pour waxtaan ceeg moom ba moom ci boppam mi ngi taxaw jonn di xaar euh, pour lu njëkk a ñëw rek ci wàllu requête dañ ko daal di utiliser dañ ko war a di utiliser incha d'accord nga wax sànq particularité Saint-Louis mu mel ni euh, tey dogalu autorité préfectorale ba fa nekk dafa am njeexital ci euh, lii di euh, hôtel yi. waaw foofu itam dama faa dem. Mhm. loolu sax doléance pratiquement doléance patron yi la ak ak transporteurs yi. Mhm. parce que dañu gis ni préfet ba fa nekk dafa jël benn arrêté. Mhm. d'ailleurs man arrêté bi am naa ko. daa ni lu weesu min bu restaurant dox. bu daasiñ dox bu baax ndox te loolu dafay nërmeeral économie Saint-Louis ndax oto yi bi ñuy takk bi ñëwee ci man sax dañu ma ni ñoom bu bees min bu ñu bëgg te daw dootuñu kenn ci tali bi mhm. finalement dañu def gaare bi donc situation la boo xam ne c'est catastrophique il faut bi jël ci ay mesures euh, dama naa audience ministère du tourisme danaa demandé audience ministère de l'intérieur pour expliquer loolu pour ñu jël ci ay mesures teel ndax loolu couvre-feu la partiel loolu laa ko tuddee couvre-feu partiel parce que région Saint-Louis rek ci Sénégal ñu leen ñun ñi bu dara dox même boo dëkkee sa sati boo dëkkee de saint di liggéey di Ndakaaru boo bëggee wàcc samedi eh, wala vendredi nga wàcc samedi nga matin nga bëgg a xëy dem saint pour def week-end bala ngaa àgg deux heures trois heures soo amee invité doo leen mën a yóbbu restaurant parce que dafay dafay xat te itam euh, li ma patron yi expliqué li nga doon ba doon am un million ci guddi gi deux cent trois cent mille ngay am diggante minuit ak huit heures mais sept cent mille yaa ngi ko doon am diggante minuit jëm quatre heures du matin waaw bu leen dootoo fonctionné nag appartement bi dafay metti dafa nërmeel économie Saint-Louis waa Saint-Louis actuellement nii parce que je nërmeel monsieur Marantal ñu ci fitna méttee méttee métti loolu nag il faut autorités xam ko pour ay mesures. El Hadj mhm. mhm. des travailleurs de l'hôtellerie euh, de la restauration et des casinos ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.